asalaamaaleykum mbok internet yi tay nak ñu ngi ñëwaat ci suñu émission fi suñu fii suñu chaîne Keman TV alors tay ñu ngi ak mère Keman ñuy waxtaan euh, sujet bo xamné ne na dëkk bi bu baax a baax ñu waxtaané sodomie manam tay ji amna jeune yu bari ñoo xamné ñu ngi koy pratiquer waaye xamuñu sax li ci bon xamuñu sax li li ci nekk dëgg ndax xamuñu ko tay nak mère Keman ñu lay laaj sodomie sax ci dëgg ci moom ci boppam fan la jógee lan mooy origine sodomie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 Euh, sadomi mi ngi jóge ci Sodome Gomorre Sodome et Gomorre maanaam ci les temps yu yàgg yi euh, bu dee ci lislaam ak ci alxuraan ñu ngi ci xam ci koo xam ne yàlla moo ko yónni woon ci xeet boobu muy annabi Lot ñu tudde leen allawaat maanaam sadomasochiste comme liñ koy waxee mais lan moo indi loolu lu mu indi lu bon loolu yàlla yónni ci ñoom yonent boo xam ne moo doon jarbaatu annabi Ibrahim ñu bokk jamono mu ne leen yéen lan moo tax ngeen di def loo xam ne lan moo tax ngeen di def loo xam ne amul benn xeet bu leen jiitu boo xam ne def nañ ko amul seen wax lu dul ñu kon uxrijoo aala Luut min xarjatikum innahum unaasun yatahharuun may génn leen waa kër aala Luut ci seen euh, village ndax ay nit yuy sellal lañ donc xam ngeen sellal gis nga seytaane bëggul kuy sellal mukk ci àddina te suñu boroom def leen nattu leen jabaru loot mu mel ni fii diir yànk yi ànd ak góor jigéen yi kenn mënu ci la nuit du temps nee na dañ daan nekk ci seen ay ay kii ay nu mu tuddati ay euh, ay yoo xam ne ay góor rek fa lañ fay accepté dañ daan wàccee seen tuba yi def criss cross woto baaxul biñ ko gisee axiru zaman lañ ne affaire góor jigéen a ci toog gis nga quelque temps ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy généraliser góor jigéen ne góor ak góor ñuy say jigéen ak jigéen wala billah mais am na sax ñu ma ci xale yi ne am na couple yoo xam ne seeni jëkkër dañuy demande loolu loolu dafa aram ti faa xan yonent bi sallallahu nee na ku nangu sa jëkkër def la loolu wala nga dem di ko def ak neneen ngeen di ko defee di ko sëyee nee na yonent bi nee na ci isra wal mi'raj gis na ay jigéen ak i góor yoo xam ne dañuy jël baaru feer bu tàng jër di ko dugal ci seen ginnaaw yi di ko génne ci seen yur bopp yonent bi gis métit bi loolu mu ne waa lii la ñu ne ko ñii ñooy ñiy pratiquer kii sado kii sado matus ñii ñooy pratiquer affaire kii sado baaxul sado li yàlla def nag moom la wax benn xale bu jigéen ma leen di avertir yéen xale yi jigéen yi ndaw yi jékki ndaw ji dégg naa sax maaraka day taale ay jànq dañ koy utiliser pour mun a conserver seen ndaw laa hawla la quwwata illa billah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na loolu képp ku ko def yàlla rëbb na la te soo ko tuubul bala ngay dee safara nga jëm yàgg sa partenaire bi yëpp surtout nag sa partenaire bi may wax mooy jëkkër man waxuma beneen partenaire de beneen partenaire moom njaaloo la loolu ne sa jëkkër ndax dafa am góor yox leen vis loolu mooy seen vis bu ko benn xale bu jigéen nangu ci àddina day yàq sa diine ba pare daf lay yàq ci àddina di nga dem ba sax ki ngay tooge rasu la dafay dagg boo moytu foo toog di tooy yàlla ñu yàlla musal mooy cosaanu sadum jóge ci sodom ak gomor waaw yàlla nañ musal ndax xeet la ku ca bokk mënoo cee rëcc moo tax leen ñaan yàlla di musal seeni njaboot ci ay pervers ñuy nekk ay pervers wala ñuy def lépp mu ne doom boo ko xësee ba seet muy commencé na jël jëkk ci bu gaaw yàlla dimbal la ci ku ci yàlla musal na musal na mais xeet la xeet la ni mu amee woon depuis la nuit du temps mun la amali ba yàlla alag leen gis nga bala bala bala mu leen di alag dafa wax euh, Seydina Jibril mu ngi ñëw nekk ay gan bi ñu ñëwee alayhi salaam daal di ñëw ànd ak les quatre malaaka yi nga xam ne ñooy ñooy ñooy ponkali bi Israil Israfil Israil mikail gis nga ñu and ak jibril dar ko moy ñeenti malaaka yi nga xamne ño yor presque euh, moy manam ño yor gouvernement bi Yalla bi Yalla yor jibril jité lé waa ki moy dé bi ño yor dé bi ki moy yor wërsëg bi ki moy yor taw bi ki moy yor yeneen yi nga xamne yépp moy aju ci mbir adina bi nga xamé né Yalla ndar na alak lut ndax ben tuuti moko top ci ay nit yàlla ne leen loot tey bu demee ba fajar maanaam ba fajar gi ji xar ay cinq heures du matin na nga ànd ak say say sa sa ñi la gëm tuuti la ak sa waa waaw ngeen ànd da di dem te boo leen di dem ngeen génn dëkk bi ndax dañuy alak ñi nga xam ne ñoo fi nekk di def lu leen neex waaw waaye boo leen di génn bu kenn gestu booba yàlla xam na li xew ndax destin ba mooy jabaru loot du ci topp te bu ne woon sa jabar dina ci topp affection bi mu amoon ak jabar ji ndeysaan dina tax mu ne ko déedéet yàlla bàyyil ma dem yàlla ndax comme dafa am xikma dafa am sagesse mu ne ko na ñëpp dem rek waaye bu ci kenn gestu moom xamoon na ne jabaru loot dina gestu parce que foofu la nekk ndax bi yàlla yónnee malaaka yi indi leen ay jëmm yoo xam ne ñu ngi nekk nit ñu rafet a rafet a rafet rafet rek jabar ja daal di dugg ci ginnaaw daal di taal sédd bi ginnaaw wala ba bu taal di sédd bi rek mooy loot am na ay gan ndeysaan naka la ñu daw rek daal di ñëw fekk malaaka yaa ngi toog ak seen rafetaay ndeysaan loot daal di daw ca bunt ba daal di jël loxo bi ndeysaan def ko ci bunt bi baare leen ay waaye bàyyi leen sama ngaan yi waaye ay waay bu leen ma rusloo alaysa fiikum rajulun rashid mun na banaati athar minkum samay doom a ngi nii ñoom ñoo gën a sell ñoom ñoo gën a nekk ni ñoo xam ne baax na ci yéen ñu ne ko waaye yow maa la naa nañ banaati min sha xoolal sa doom yii ñun la ñu lu ñuy wax ci ñoom ñun li ñu soxla mooy sa gan yii ay bu leen ma rusloo ay bu leen ma waaye bu leen ma rusloo sama gan yi nee na ñooñu xool loot daldi koy mel ni ko bàlleen rek ba leen bi ñëw nee nañ bañ ñëwee rek di leen song rek nee nañ jibril moo jël suuf daal di koy sànni ci bët bu kenn ki ki leen jiitu woon bët yi génn ci ginnaaw gi rek kooko yuuxu daw ñoom ñu daw waaw jibril ne ko sa ñoom yi tey inna mu'adibuhum azaban shadid وموعده صبح اليس صبح قريب ونقول ني ني دنجلن دي اساب دنجلن دي اساب اساب بو خمني تي سين سين دا سين ليميت بي نلن دي اسابي صبح لا ناخ صبح جيغي صبح جيغي نادي مودو ني لاي واخ فورس سيدنا جبريل عليه السلام مودخ يالا داف كو تاغ سي القران سي سوره التكوير نكو ذو قوة متين عند ذي عرش مكين متاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون wala raaw fil al mubin yalla mi ngi tag jibril ne ko xolal da ngay xam ci dolem bobu lan la def ba yalla diko tag neena sama ndaw la boo xamne ne bu am bu jubla la maanaam am nek nitu kilifa amal ndaw lu jub loo xam ne foo ko yónni njub googu mu def ko namu war te ci sama ker la nek ci keru arsh yalla manam ci keru trône sunu borom du quwwatin matin nena ma jox ko dole bo xamne ne kenn xamul kenn mënu ko mesurer dooleem bi nee na yonent bi moo ko doon gis muy naaw ci jaww ci mu di gis ko muy plané yonent bi moo ko gis ak ay laafam donc yonent bi yàlla ne ko yow dofoo de gis nga jibril bu baax ndax man maa tax nga gis ko jibril moomu laa leen di nettali lan la def keroog bi ñuy alal Sodom ak Gomor nee na la ko alaysa maw'idukum subh alaysa subh na toog ñii seen seen seen seen rendez suba la te suba jege na cinq heures du matin la ne Israfil jàppal fee Azraïl jàppal fee Mikaay jàppal fee nee na moom ci moom ci boppam mu jël laafam benn laafam dal di koy roof ba mu dem ci juróom-ñaareelu as suuf nee na yëkkati ko ba muy seen asamaanu benn dëkk ba lañ yëkkati. yaa ngi may dégg de. waaw dëkk ba lañ yëkkati ba muy laal asamaanu benneel ba nee nañ boo déggee seen sap ya seen ginaar yi di sap ci asamaanu benneel ñu ngi koy dégg rek ñu ëlbati leen. Sodoma Gomor mi ngi fi ci wetu Jordanie wetu Israël plan plein la boo xam ne. dara du ca sax dara lépp suufur la. dégg naa suufur la kay suufur la dara du ca sax. muy dëgg la et kii scientifique yi étudié nañu ne effectivement dëgg la li ñu waxoon Sodoma Gomor fii lañ nekkoon ndax dañ leen a dibli ci naari jahannam boo xam ne fa gën a métti ci safara bi. dañ ëlbëtti leen ci biir. suufara dëpp leen. donc foofu dootu fa dara foofu amati daal maanaam maanaam dañ leen dañ leen dañ leen dañ leen dañ leen exterminé. Mhm. mu jeex lii mooy xistatu àll loot lii moo histoire àll loot donc képp xam ne yaa ngi def ba képp ku ko sa jëkkër doon def te xamoo ko nga ne bàyyi ko parce que yiis la baaxul na ko xale yi bàyyi na ko xale yi jël dindi ku xamul nag mère Kéemaan loolu ko tax a jóg wax leen yi nga xam ne tabu la yoo xam ne xale yi xamuñu ko de ci biir lay dugg de je ne serai pas nag vulgaire mais nag dina wax ba ñépp xam li ma bëgg a wax leer na Adja Mariam leer na naa ñu waaw yàlla ni yàlla may dégg ak topp mm-hmm. waaw yàlla ni yàlla may ay nopp yoo xam ne bopp yoo xam ne ay nopp yuy dégg moo cay sax waaw ah maa uridu illa illa ma sataat wa ma tawfiqi illa billah bëgguma lu dul rek nit ñi jub topp yàlla nag moom may gindi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu waaw jërëjëf mère jërëjëf ci xam-xam tey ji bi ñu jox ci affaire sodomie xale jigéen yi ak xale góor yi sax yéen ñi koy def yi ñu ñëpp ñoo ko déggandoo nañ ci bàyyi xel bu baax jamono ak plaisir jarul yéen yi ba mun a jaru aussi ngay jaay sa ngor wala di jaay sax sa iman jaru ko kon nag ñu ngi leen di jaajëfal di leen wax aussi ba à la prochaine fois ci yeneen émission incha allah te ne leen la prochaine fois incha allah dinañ wax ci fornication ak lépp lu li bon ci fornication ak li li li muy umee léeg-léeg ñun jeunes yi xam ne des fois xamuñu ko waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah à la prochaine fois merci beaucoup